abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir door su nekk ay xibaar yu wér te mi ak ci ku ne woon yàlla ay dëgg-dëgg ci pootum buur turbine yéene kaay ne mi ngi le regard yéene kaay naan kon dañuy tëj ay télévision ci réew mi ba bugaan gay dani di ca jàpp turbine yéene kaay ne ko àdduna wërngal këpp xippi seen bët fi mu ne tegunu ko fenn nag fudul ci réewum Sénégal manifeste yi nga xam ne am na alxamis ak aljuma diggante benn fan jàpp ñaari fan ci weeru juin moom mbootaayu xeet yi day mang see sàkku enquête boo xam ne daañu ko ubbi nag ci fukk ak juróom benn faatu yi nga xam ne Sénégal officiellement nee na loolu moo faatu ci réew mi fukk ak juróom benn yooyee nee na nañu ubbi enquête ci ñoom ubbi enquête nag ci wax dëgg-dëgg lan moo leen faat l'observateur naan kon Sénégal lëndëm gi mu nekk yàlla na ca jógee turbine yéen kaay naan kon da cay jógee ndax sëriñ Muntaxa nee na alxamis gii nañu wàccee kaamil ci réew mi ñaanal réew mi jàmm dal ak stabilité yéen kaay des bi naan koon waaye bu ñu fàtte mbootaayu xeet yi ma ne la ma nga naan Sénégal ubbil enquête mbaa ma def ko def réew mi nag la jikko def boroom xam nga boo demee gën a ci bërëb del sa jikko teg ci buntu bi ne ko loo may doyee mu ne la génnal jël si ma mbaa ma dugg fekk si la lii nag la mbootaayu xeet yi wax état bu senegal da ngay ubbi enquête mbaa ma def ko au commissaire bu mbootaayu xeet yi nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci ak yelleefu doomu aadama naan senegal mënoo am réew moo xam ne ay manifeste da cay am manifeste yoo xam ne dañoo jël ay bal rey di ko jor sab askan askan wa ñenn ci ñoom daal di cay ñàkk seen bakkan te ña ca ñàkk bakkan ma ne la ay bal reyel moo leen faat te bal xeet yi naan leen takk der yi ñoo naan jaaxle naa ci li am ci Sénégal nañuy salfaañee ak di caxat-caxatee ak yeleefu doomu aadama ya foofee yéeme na ci ñaari fan ciy manifester ñu faat ci fukk ak juróom benn ciy doomu aadama ñetti téeméer ak juróom fukk am cay gaañu-gaañu juróomi téeméer ciy doomu aadama ñu daal di leen tey jàpp lii lu na ñu ne déeta waaye ngeen di télévision yi du ñu wane nag li am ci réew mi ku ko wane ba mel ni wal fajri ngeen jël daal di ne ràpp daal di tëj tribune ci tëjug wal fajri googee bugaan géy dani ma nga leen banditisme d'état dong moo ko critique naan koon bugaana ngay wàllu ji waa Walfadjri 24 heures yéene kaay naan koon jënd benn exemplaire journal bi benn million bugaan géey dane ci tribune yéene kaay naan banditisme d'état lañ teg Walfadjri weer gin ko tëj tegunu ko ci dëgg tegunu ko ci yoon moom jiital gëm sa bopp jaayoon lu toll ci fukki junni ak téeméer ci carton yu xonk yoo xam ne président Macky Sall lañ ko bëgg tiitalee ngir mu dem lam ca am di benn million ak ñaar fukki junni nga xam ne jaaykatu caaf gaa kay sol essence te station ba soxna sa nekk ca marché ba di jaay lu jum ba ngir am ku ci nekk sag ñaar fukk dugg na ci loolee la Bougane Gueye Dany jébbal Cheikh ñas ne ko gëm sa bopp la ko jox waaye askan wee la ko jox te naan ko Cheikh doxalal yéeni kaay bi naan maan bu mu neex ba ngeen fàtte ni mbootaayi xeeti nee nañu ubbi enquet ci lii Antoine Félix su jëm ci Vox li mel ni ku naan kon matu ko de ndax fii ci Sénégal ci boppam ubbi nañ ci ak l'enquête képp koo xam ni néer bi nga yorub arme nguurug Sénégal ubbi na enquête ci yow te yoon fas na yéene doxalal boppam am ca gël gu ngir ñu xool dëgg-dëgg néer wi lépp lu soxal ci vidéo ca nekk kan moo leen yónni lan moo tax ñu yor ngànnaay ndax ngànnaay jëfandikoo woon nañ ko Antoine naan réew mi nag fu mu nekk ku ci nekk yaa sa dëggu bopp te ku ci nekk it yaa ngi tuumaal sa moroom waaye dëgg ji dëgg ji ma ne la enquêteurs yi ñoo koy wax xamle ko ñu leeral ko tribune yéen kaay naan maan en tout cas procureur de la république daal dinay ubbi ab information judiciaire jébbal ko x kuy x l'observateur naan kon x kay mooy ña fi andi woon andeeti te naan fi mu ne Sénégal tiitaange jàpp nañu ñi mi ñu naan ay terroriste la naan ay financement ñooy bàyyeekoo bitim réew di duggu ci réew mi ngir salfaañe ko ñu ngi naan ci réew mi ay force occulte dafa am l'observateur naan mante enquêteurs yi li ñu wax ma ni la ay menace la yoo xam ne ñu ngi tegu ci ndoddug réew mi source a naan kon jàpp nan lu toll ci juróom ñaari téeméer ak fukk ak juróom benn ci manifestant am na ci ñoo xam ne moom daañu dem daar daar ñibbi seen kër waaye bari na ci ñoo xam ne information judiciaire la ñu ubbi ci ñoom Les Échos naan kon BRT bi moom dañ koo caxat-caxatee ba mar day ci ñaar fukk ak ñett ci station fukk ak juróom yàq nañ ko Antoine Félix Diome naan police boo xam ne day daagu di wër ci koñ boo moytul moom la ñuy daal di teg l'enquête quotidien ne ma privé bi moom xamle na ni la ñu yàq moom mënee su ko wañ fukk ak ñeent ci banque laal nañu leen caxat-caxatee leen yàq leen bokk na ci ñoom fanweer ak benn agence yoo xam ne dañ koo def dóom ñetti milliards banques yi ñàkk ko ci réew mi Auchan daal di ñàkk juróom-ñaar ci magasin te boo moytul ñetti téeméer ci ñoo xam ne dañuy liggéey ci Auchan daañu leen dàq le quotidien le quotidien naan man CNP nee nan bilan ba métti na ci ñoom wala lu toll ci téeméer ci station d'essence dépense daal di nañ koy yàq caxat-caxatee ko tourisme réew Sénégal daal di lompoñ kenn ñemeetul jóge bitim réew ñëw ci réew mi bato yi daal di am ab taxaw booba suur soit daal di may xamal ne moo ne day ba tey réew mi nit ñaa ngi def lu ne weng te dara du leen ca fekk xoolal rapport yi nga xam ne publier woon nañ ko mu am diggante 2018 2019 ak 2020 ca cour des comptes gannaaw ba nga xam ne nee ñu magistrat yi nañ ci defuk l'enquête magistrat yi def nañ ci l'enquête di xaar président Macky Sall mu jox leen bés bu rafet ñu jébbal ko yooyu le rapport ngir Sall nag wax dañuy topp gaay ca tax dàqee am déet en tout cas bu 2021 2022 bi moom gaa yaa nga ca rapport ya te nar na saf sàpp su pëpli naan man diggante Khalifa Ababacar Sall ak Yewwi Askan Wi saf na sàpp source aane ko daanaka sëy ba tas na de ndax nag conférence des leaders Yewwi Askan Wi amal nañu ab réunion goo xam ne visioconférence la Khalifa bokkul Bart bokkul Ousmane Sonko ne ca gannaaw naan leen la ma bëgg mooy li Dias bu mu bokk ci biléeb ndaje te am na moom Khalifa Ababacar Sall ci Vox Populi naan leen mani la pensée unique moo fiy jeex l'observateur naan leen Khalifa Ababacar Sall sonn diggante parti socialiste ba ci yeewi askan wi fu mu dem dàq nañ ko tëntëñal ko moom xaaf le mandat yéene kaay mel ni ku naan maan xaaf kat waru koo bett ndax nag yeewi askan wi pensée unique bi daanaka moo ko jur ngénte ko te benn xalaat boobee ñëpp di jëfee loolee de moo samp yeewi askan wi vox populi naan maan booba day am nay dogal yu rëy yoo xam ne jël nañ ko ci njàng meeg njàngale mi ministère bu éducation nationale Cheikh Omar Anne daal di koy jël mu daal di jëm ci déggoo yoo xam ne am na diggante ministère gi dénk njàng mi ak sayem sa kusem ay dogal yoo lu rëy la ngir nag dal daal di am des ci année scolaire gu ren gii moom ministère bu éducation nationale war ci lëkkaloo ak fonction publique ngir nu jëfee la nga xam ni tënk nañ koo jàngalekat yi alxamis gii ministère bu urbanisme ak bu habitat war na dajeeg syndicat yi ngir ñu waxtaanee ci wàllu logement junni ak fanweer ak juróom ci élèves professeurs yi nga xam ne dañoo bëgg dugg ci wàllu tàggatu yaram ci lekkool yi fas yéene tàmbali ñoom it seen tàggatu ay formation à distance ñu war koo amal ñu war a waxtaan ak FASTEF ci yoo xam fan ak juróom ñaar ci weelu sulet koppar ga ñu daggoon ci ñoom ci grève yi ministère ne leen dakkal nañ ko ba jëmmi jamono geestu jàngalekat yi nga xam ne ñoo am ca jululu jéggal leen lii lépp nag ministère bu njàng meeg njàngale mi daal di koy bàyyi ngir dal ak stabilité daal di am ci l'école yi ndongo yi mën a def seen i composition ak seen i l'examen ngir année scolaire 2022 2023 bii ñu mën koo sowee lii ko dajee naan maan moo taxit fukki ponk ak benn yoo xam ne syndicat yi nekk ci njàng meeg njàngale mi tënkoon nuñ ko ko Cheikh Omar Anne Cheikh Omar Anne ànd ngir ñu sowe njàng meeg njàngale mi waxtu woowu la solo yéene naan maan sàlla ngay jaagar-jaagari wuti bitim réew utul nii financement moom président Macky Sall indil nu téeméeri milliards ak juróom ñett fukk ak ñaar Walf Quotidien naan maan waxtu woowu fa xaalis ba jëm day ña nga yëngu-yëngal direction générale bu impôt domaine ñetti fan la bank seen loxo duñu liggéey ndax nee ñu Bassirou Diomaye Faye la bëgg ñu daal di koy bàyyi nu mu gën a gaawee tribune yéene kaay jox kàddu maître Doudou Sow muy xam le ni loo ci manti déggit Wally Ballago Seck ab philosophie la xale bu amul xel mënoo tënk li Wally di la muy wax laas yéen a kaay naan maan ngeen xam ne it fa nga xam ni deret fa lañ koy mayee ci réew mi daal dina ñuy soxla fi mu toll nii juróom benn fukki junniy poche deret waxtu woow yoor yoor a nga naan maan Serigne Saliou gay def na ñaar fukki fan ak ñett ci kaso bi direct news naan maan wax ji wax ji day tabaski bi la xar cher na te xaalis amul ndax coow li coow li mooy duñ ko def tabaski jàkk ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm abonné leen ci suñu chaîne YouTube yu wér te wóor aju ci